Euh, contrôle. takk lam waaw lam lam bi am de bracelet électronique. Mhm. Euh, naka ngay jàngatee mbir yooyu dafa mel ni fi mu toll ni moom euh, fay lempo rek. waaw xam nga wala ñu takkal la caq bi. waaw xam nga olof caaxaan jeex na. Hmm. caaxaan c'est fini Ali Babou. caaxaan faaxe waaw caaxaan faaxe xam nga gars yi doxee <laughs> caaxaan jeex na dëkk des. non ma xam nga damay wax ñu naan non pourtant impôt yi rek nii man leen naar bi sax dafa dem ne dafa def négociation pénale la waaw ah, mooy yooyu nag douze milliards douze milliards mais topp douze milliards réew mi yow nga këdd ko ci xale yi ba pare bëgg ne mër ak moom mais topp dama naar bi yaa daan jàpp gars yi dañ laa jàpp tey waaw te topp nga di teg benn affaire suñ gaa yi di kaas yi nii yëpp ci mbirum fiscalité bi mm. nga war a fay impôt wala fay mais ñu lay wax nga toog kital yi di am lu wax sax loo wax nguur gi daa baax mm. président Diomaye wax na ko mm. nee na suñ toppoon loi bi dëgg-dëgg man dépp ngeen war a dem mais ah. doomu Joe Biden doomu Joe Biden dalu ko doomam boo xam ne tey sa papa mooy président des États-Unis nga am problème mu fisc bi mais problème mu fisc boobu nga am moo tax tey ñu jàppale tëj la ndegam kooku lañ jàpp di ko tëj ci problème mu fisc mais saka keneen kon dafa jot tey naar bi lu ko def man ñëpp koy rafetlu na fay xaalis bi rek comme moom da jël suñu suñu xaalis daaw ko delloo ci suñu impôt ah fay état bi xaalisam c'est man daal euh, topp euh, noonu laa ko gisee mu war a dem fay na rek rek loo ciy jàngatee aussi tamit benn affaire bu am solo mooy looy xool mooy réew mi mooy lii kenn daaw ko gis. plus souvent euh, mooy impôt di fekk société di fay mais seetal tey état Sénégal ba ñoom son Sonko ñëwee ba léegi premier ministre mais da nga gis ñaata état maam ñaata entreprise de redresse ah and euh, surtout kii société bi nga xam ne moo suñu wàllu pétrole bi da nga gis euh, moom li muy wax moom tamit daanaka ñu ngi ko yóbbu na dossier am ci justice mais loo ci jàngee mooy nit ñi ñu ñu doon gouverner nan la ñu doon gouverner maam ñu ñu doon gouverner ci nan la ñu doon gouverner. tey nga xool entreprise yu bari tey ñu ngi am problème ak fisc ñu leen yóbbu ci opé maa ñu leen yóbbu ci tribunal yi mais kon ñu fi nekkoon dafa mel ni kon dañ leen doon baal ñoom waaw naar ko jàpp ak ñeneen ñi ñu jàpp ñëpp nañ fay 12 milliards euh, kii euh, website amel ñu plus de ay du 40 milliards xaw ma 41 milliards mais loolu ñaata école la mën a tabax bari na ñaata la mën a def ci ci hôpital yi loolu tax su ma déggee benn leader politique muy wax naan laajkatu juuti la ngeen cee mën a def dër ma xam ne kon kooku moom pare sax pour téer réew mi juuti mooy defar réew di yow topp boo génnee ma fay man ma fay entreprise yooyu fay mais mooy taxaw télé bu yàqu bii ñu mën ko cee defar wallaay te te gis nga li ñu na nit ñëpp sama genre sañ-sañ te fay léegi mhm. psychologiquement nit ku nekk xam nga ne léegi entreprise boo taxawal da war a fay impôt te loolu lépp lu ko boo ko seetlu bi ñu commencé réussir màggal gi gis nga ci yenn kilifa yi ciy waxtaan dañ koy wax da leen fay impôt mag ñi daan nañ ko wax man si vous rappelez très bien ay années 80 88 89 90 tabaski bu daa jot dëkk ba mhm. mais suñ jullee tabaski su jullee kaay ba chef de village day ñëw téye micro bi yéen ñu ñëw tabaski bu leen fàttee balaa ngeen daw ñëw leen kër gi ngeen fay impôt bi ñu yóbbu ko li ngeen am mhm, mhm. mais loolu parce que loolu dafa yàgg am léegi nag ñu ñëw bëgg koo gundaa naat mi dem noonu ku fayu daal naar bi comme da doon jàpp <laughs> mais déglu naa kan laa déglu bu ko expliqué Moustapha Niang si je ne me trompe pas mu ne boo demee russe xaw Suisse mu ne mais boo leen amalee balaa ngaa génn dëkk bi. non mais fi nga taxaw tubaab ba police bu la jàppee li muy njëkk wax day contrôler sa kayit yi su xoolee gis na yow da am problème ak impôt bi mais danaa la monsieur da am problème impôt ak état bi balaa ngaa génn da koy fay. Mhm. soo fayee ñu bàyyi la nga dem soo fayut nag moom ñu teel mm. a. Mm. pour dem bañ xoolee na ko yow amel nga état bi xaalis. da koy fay mais sur lu ko yàlla daf ko defal sutura mu fay ko ñu doo koy bàyyi mu dem. Mhm. impôt loolu kenn du ko négocier fay rek. te yaakaar naa bay bas mii. yaakaaruma day day négocier ci impôt faar efface. efface du am fay rek. Euh, topp nañ fay. naar bi daal su fay bu kenn te muy dëgg. waaw na fay boobu boo yeneen entreprise yëpp yu fi nekk. parce que xaalis boobu am na lu ñu mën a jëriñ. waaw mën nañoo jàppale ci hôpital su ma gisee xaalis boobu noonu ñuy këdd. te boo demee. Euh, Saalum Saalum gii. nga romb ndukkumaan bambo ba ñaani nga romb baykat yi ni ñu sonnee ñàkk tooy xëpp. hôpital bu ñu fajoo sax duñ ko amuñu hôpital bu ñu fajoo. amu ñu machine lañ ci mën a jënd ndox mu sell ñaata forage lañ ci mën a bënn. bëri na. amuñu yoon bu ñu jaar bu ñu bëggee tukki. bu ñu xëyee bu leen horaire bi rombee mënatuñoo dem amuñu yoon bu ñu lii bu ndaw taw bi bëree sax fa ñu dem mën nañoo bañ a ñàkk a dellu. ndax taw ndax ñàkk ñàkk yoon bu ñu jaar et cetera et cetera bala maa tëj euh, émission bi dama am benn coup de gueule bu nga xamante ni dama ko bëgg a passé. Mhm. Euh, de santé bu Kër Manoumbe nag fële ca département bu Koungheul ci région de Kaffrine. Mhm. Euh, nekk à un kilomètre de la frontière de la Gambie vraie mhm. catastrophe ma moo fa am. kilifa yi yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a war a jóg ci loolu bu yeboo ngeen xam ne am ngeen chantier bu ngande bu ngeen war a jóg. ma bamtuwaat ko Kër Manoumbe mu ngi nekk ci commune bu Saly Escale nekk ci département bu. Euh, Koungheul euh, ci région de Kaffrine moom moo féetee fële ca côté Gambie à un kilomètre de la Gambie wala même léegi moins que un kilomètre de la Gambie parce que dëkk bi mooy dëkk bi gën a mag euh, ci commune boobu seen poste de santé ba infirmier ba fa nekk lu ko neex rek la nekk di def boo amul ñetti junni gëmal ne du la sampal butéel du la defal dara ba tax na waa dëkk ba daanaka ñoom ñëpp Gambie la ñuy dem di fajoo ji Kuntawuur wala ñu dem Palol bu fekkee ni médecin bi dafay ñëw ay fenn ñu nga xamante ni dafay ñëw ndax nañu ne euh, fajoo ji foofu si ngay ëpp ay garab mais tamit si la faj ji gën a yomb ay baadoolo nag ak ñi nga xamante ni amuñu xaalis bu bëri bu fekkee ne da nga leen fas yéene faj da leen di defal euh, véritablement politique sociale bu nga xamante ni moo leen di permettre ñu faju te boo leen di facturer yenn prix yi mais CRA sax nga am yenn garab yi donc nekk ni foofu non seulement poste de santé bi état bi mu nekk c'est extrêmement grave et catastrophique mais infirmier bi nga xamante ni moom moo fa nekk également lu ko neex la nekk di def te loolu moom lu euh, mbooloo mi lu euh, autorité yi war a war a vraiment taxaw la dëkk la bu nga xamante ni mooy dëkk bi gën a mag ci commune boobu noonu parce que au moins def na un tiers commune bi yëpp boo leen boolee benn dëkk boobu mooy mooy un tiers dëkk bi te loolu bi may am information yooyu na mu nekkoon un tiers commune bi loolu lu yàgg la euh, ci diggante bi daanaka dëkk bi doublé wu na ci na nga xamante ni noonu la tolloon mu nekk dëkk bu mag a mag a mag mais nag électrification euh, boo demee foofu tamit mooy dëkk bi gën a lëndamit ci gox boobu ndonte am na courant mais li nga xamante ni moom mooy euh, lamp publique yi moom véritablement maire ba fa nekk def ci dara te nee nañu ma am na deux cent quatre-vingt-quatre ay lampadaires yu nga xamante ni mu ngi ko tëj ci magasin di xaarandi élection pour mu mën ko génne di ko campagne loolu lu autorité yu bees yi di war a mën a taxaloo maire boobu nag bennoo la bokk pour euh, au passage. waaw man ma jox suñ benn doléance balaa ngaa tëj waxtaan bi. <laughs> am nañ benn doléance mooy passerelle bu nekk ci géej gi. mooy VDN 3. diggante rond point Malibu ba mën ngaa jël apix bi. vraiment El Malick Ndiaye. ministre bi ñu ngi koy interpellé. Hmm. man def naa ci ay reportage mais rond bàyyi naa rey. non boobu mu wàññeeku ne wax dëgg yàlla formation spéciale. Ah. ban ñëwee defar nañ ko defar boo xam ne léegi boo ci doon jaar sax comme ni mu doon rey defatu ko. wax ah, dëgg yàlla bu maam dootul maam dóor pont bi yéeg. toj nañ ko toj boo xam ne léegi bu saaraanoo sax dana mën a dem. Ah, dina waaj dina mën a yeewu. kooku moom formation spéciale li mu yari aussi def nañ ko ci mais ak vacances jeunesse bi ak vacances yi am ñoo xam dañuy dem di entraînement ji jigéen ñoo xam ne en nekk dañuy jéggi tëli pour dem ngay jéggi tëli te foofu oto yi vitesse la dawee. Mhm. mais c'est catastrophique. kon nag ah, El passerelle yi fa nekk dañu ah. daanu mais lépp lañ dindi loolu boo leen waxee nag des fois da Ageroute am na ci part de responsabilité. Mhm. nañ defar passerelle yi. Mhm. boo waxee xam na la foofu brise de mer bi ma leen loolu du lay mais soo demee lu mel ni Joal ndax ndax brise mer da koy yàq. nañu mais te fii nga xam na tey bar nga jël banta def ko. dañ caaxaan mais mën nañ def passerelle boo xam ne ban pont ko defar vraiment population ak ñàkk am volonté moo population moom kooku ñu koy wax vraiment cri de cœur cri de cœur la pour ñu jàppalañ ci El Malick Ndiaye ak waa Agirout. luñ ko mm. mën a def gaaw mu gaaw. Mm. li nag ci àddina. ñu bàyyi ba musiba am fa. ñu doog koy wax ci loolu boo seet loolu procureur Aliou Ndaw mm. grand frère am fa la génne àdduna sama dëkkandoo gisee. Mm-hmm. doomam fa la génne àdduna. Mm-hmm. oto dañuy ñëw mbëkk fa nit doo xam sax noonu lay déparé voilà di def guddi gi wóorul kon nag ñu ngi interpellé ministre des transports El Hadj Malick Ndiaye waa Aziroute nañ dem defar fa mm-hmm. vraiment kooku géej waa dañ ko solo topp loolu moom mënu ma koon ñàkk bañ a wax alors coup de la bu nga xamante ni je pense que ni coup de bu ama am solo la parce que euh, ay bakkan véritablement dañ war a sàmm parce que nit ñi ñoom ñooy tax dëkk bi ñu defar la ah, mais ñu war a defar nañu war a defar ba nga xamante ni véritablement VDN 3 bii nii liñ ci war a def ci ay sécurité dafa bëri mm-hmm. non seulement lumière yeeg avancement yeeg rond point de la mort boobu comme wàññi nañ dee foofu tamit loolu am solo la mm-hmm. waaye fexe ba sauver ñi nga xamante ni également dañuy jéggi parce que dañuy soxla géej gi mm-hmm. dafa nga jéggi VDN bi pour a dem te bi yi guddi pour nga gis nit kiy jéggi loolu it loo xaw a jafe la moo tax passerelle yi moom mënul ñàkk ñu defar passerelle yi waaye ginnaaw bi ñu defaree passerelle yi nit yéem it na ngeen di yéeg ci passerelle yi. parce que <laughs> su defaree passerelle yi exemple nit ku ci yéegatut. kuñ ci rey parce que dañoo defar yëf yi pour nga fiy jaar mais comme passerelle amut nit ki foofu lay jaar soo ko koo fa rey yaa tooñ de mais suñ defaree passerelle yi ba pare aussi tamit passerelle yi suñ ko defar la fois passée dañ ko defar foo xam ne foofu nekkul passage yu nit ñi hmm. exemple ñuy génnee voie amukaat voie boobu da xam ne voie principale mais defal passerelle bi si pegg bi nga xam ne ku génn ci voie bi bi mais mënoo pour yéeg ci passerelle pour jàll mais nit ki day pare cinquante mètres pour pour war a ñëwaat fi nga war a ñëw mais mënul <laughs> nekk kon da seet nit ñi foo xam ne wóor na ma buñ egsi fi mën nañoo jéggi directement aller nga def deux cent mètres waaw deux cent mètres lan lay obligé dana ah mais nekk foofu tama nekk góor man damay taxaw xaar tëb daw loolu risque loolu tamit ñu bàyyi ci xel ah. jërëjëf Hadj Bekkay Koundoul borom xam-xam bu yaatu bi mbokk yéen ñu di doon naa ni waxtaan wi vraiment ça vous a plu moom la am ci li nga xamante ni moom mooy actualité réew mi ñu ngi leen di jox dig daje eh, Bécaye bala ñu joxante dig daje xanaa tëj bi leen rek la mooy bu ñu fàttee ñaanal imam waaw loolu moom waaw loolu moom dafa vraiment na li ma ñor lool lool lool ah, lool ah. yaay Fatima xaw ma ah. eh, eh, nga xam ne moom soppe imam ak même Anta mère Anta mère Anta Mbow bul fàttee ñaanal imam euh, ak sama grand Seyda Anta am na am na benn grand bu baax vraiment daf ci daf ci pré mm-hmm. dafa seetaan émission bi Euh, gis imaam woo ma téléphone ci guddi gi na ma mais Amadou munuma munuma fex leen imaam dem fajo ci mm-hmm. waaw ni ngeen mën a def kilifa yi nekk ci kaw jot ko nañ ko jot nit nag waruñ bàyyi ba mu dee ku nekk di indeb nag wala di jaay affaire mm. mu ne ma fex lañ imaam mu dem faju vraiment bokk na ci ñu ci inspiré ci loolu mm. ba barki démb ba ma déggante ak imaam rek woo ak sama grand boobu mm. na ko ah macha allah li nga doon ñaan yàlla def na ci sutura imaam dem na te mu ngi tane baax wax nañ téléphone mm-hmm. ah vraiment gën a yokk ñaani rek yàlla defal ko sutura ba mu dellu siwaat ci jàmm mi ngi Espagne di faju foofu ñu ñaanal ko Euh, yéen ñi nga xamante ni yéenay soppey émission bi di xalaatal yéen tamit ñu ngi leen di sàkku ñaan ngeen ñaanal imam euh, ba mu amaat wér gu yaram gi nga xamante ni moom la soxla yàlla may ko wér gu yaram gu baax a baax a baax ba mu dellu siwaat fi nga xamante ni moom mooy Sénégal ngir mën a yeggali liggéey bi nga xamante ni moom la doon def euh, te new it yàlla na ko yàlla def ci ne mu gën a gaawee mu may ko ak wér gu yaram gu baax imam Euh, ñu ngi lay ñaanal suñu boroom yàlla na fëgg sa bopp ba nga am weer gu baax a baax ñib si mbokk yéen ñi doon bàyyi xel ak topp émission bi di xalaatal ñu ngi leen di jox dig daje. Euh, beneen yoon ci beneen émission bu nga xamante ni di ngeen ko seq ak yéen fii ci Sunugal 24 bu leen fàtte suba euh, seen émission xel koom dina fi ñëwaat indi débat d'actualité yëpp. am nañu euh, ki nga xamante ni moom moo jiite Maggi Pastef Mayabe Mbaye dina fi teew ak yeneen invité yu nga xamante ni ñoom ñooy ànd ak euh, sàmm Ndiaye ak euh, Saliou Bokoum mi nga xamante ni si Cheikh Omar Diagne la bokk fàtte nañu wax si mbirum Cheikh Omar Diagne ah imam mais beneen yoon dinañ mën a am temps. <laughs> Omar Diagne war na ci mais beneen yoon quoi. waaw incha jox leen dig daje beneen yoon incha ak yeneen programme yu Sunugal 24 wéy leen di abonné di notification ngir di mën a am notification wu bépp programme moo xamante ni di jàll Sunugal 24 jox leen dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.